Rocky léegi ginnaaw ay jàmbat léegi lan nga mën a wax sa diggante yow ak CNG. waaw d'abord damay ne salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak ci koor gi ñu jóge waaw di nuyu sama sëriñ Abdou Karim Mbacké di nuyu Sénégal gi yëpp di ñaanal suma yaay booy mi nga xam ne moom mooy suma xarit. waaw donc euh, diggante man ak euh, du mën a sax man ak CNG mais dama ne diggante man ak euh, papa doom man ak père père et donc defe naa ni li nga xam ni moo ci am nii defe naa ni lu gën daal parce que tey atte nañ verdict bi waaw atte nañ bi te li ma ci gis mooy lu baax mooy waxtaan. yàlla suñu borom seral xol yi ñu mën a juboo donc maanaam papa ak doom rek la des fois doom juum xam nga papa corrigé ko wala approché ko wan ko yoon bi donc CNG suñu kilifa lan donc tey dama koy rafetlu ba nga xam ni suñu borom ubbi na benn bunt boo xam ni ñu mën a approché ñu mën a waxtaan pour l'avenir. donc maanaam dafa mel ni donc yow fa nga waroon jaar jaaruloo fa wala ñii la doon tàggat ci yooyu ñoo kiiwuloon daal. waaw xam nga tey euh, ñun dañ ne balaa ngay xam xamadi di xaw laa rey loolu la loolu loolof di wax mais man dama gëm ndogal rek ndogal yàlla sunu boroom ndaxte tey bu sunu boroom ne waaw ñëpp na déet mm, dañuy sonn rek mais day am bu sunu boroom ne déedéet ñëpp na waaw day yàgg rek waaw donc moo tax ma ne tey. alhamdulilah daal lay wax alhamdulilah lay wax meroo ma kenn gërëm ñëpp di yéen jàmm ñëpp yéen a jàmm senegal yal na fi na fi jàmm yàgg waaw ci rek nag lenn dafa am solo parce que jàmm bu amee ci ñëpp jàpp jàmm am moo gën tey eh, nit xool lu ko neex mu bind ko wala lu ko neex mu def ko ci sitam di ne contasier di ne yàq-yàq loolu jaru ko quoi noonu la farata rek ñun ñëpp ay njaboot Serigne Touba lan man de rëccu naa sax lu ma doon demee justice pour dem euh, ak CNG justice parce que euh, nit ku ne da nga am ay kilifa ba pare. ba pare xam nga euh, amay kilifa di leen déggal ba pare yéen ñëpp jàmm donc l'erreur est humaine tey ku nekk doomu aadama nga rek da ngay juum mais boo juumee daf fi fu jullit delloo si waxtaan ak sax xel ñi nga xam ni dañu bëgg dëgg ñi nga xam ni dañu gëm dëgg ñi nga xam ni ñoom euh, dëgg rek mooy des bu ñëpp dawee ñoom ñu des dañ lay xabar rek ñu ah nii kat mooy yoon bi nii mooy yoon bi nii ngay yoon bi parce que man nekk fi ñoom contentieux wala xuloo wala histoire ak CNG sama me rapporte rien nulu ma dara man dama bëgg bëre rek laa bëgg bëri bëre rek laa bëgg bëri wala sama bopp wala de quoi je capable loolu rek laa bëgg léegi roog ni gis nañu génn nañ ci koor gi mais dafa mel ni yow koor gi euh, yëngalu la daal. waaw yee koor gi yëngal na ma bu baax a baax koor gi yëngal na ma bu baax a baax parce que tey li ma perdre boo compté est-ce que ëpp war na ëpp vingt kilos waaw parce que xam nga tey man dama may estomac ulcère waaw donc tey euh, ñëpp xam na ni dafa soof mais nag am na ñoo xam dañ koy mbubboo bañ a woor wala bañ kii metti na nag yàlla def nii woor naa ak moom sunu borom dimbal na ma ba génn naa ceeg dugg naa ceeg bisimilah rahmaani rahiim génn ceeg alhamdulilah rabil alamina jeex naa nag affaire yi mais maa ngi sentir nii yaram baa ngi ñëwaat waaw démb dem naa salle entraîné. ñaata nga daan def normalement. waaw normalement daal su samay poids muscle net cent cinquante kilos cent cinquante cinq parce que bu ëppee rek da ngay diis doo mën a mobile. donc tey waaw te man euh, maanaam miskoot rek moom laa doon liggéey daal du jël dara grand xool li may lekk mbër warul am biir mbër warul am yaram bu grand mbër dafa war ko Modou voilà. donc justement léegi boo xoolee saison bi des na ñetti combat léegi Modou Lo yow tey loo ci gis. waaw Modou Lo Gris nga man du wax lii suba ma wax la lii Gris Bordeaux ak Modou Lo yëpp samay doomu ndey lañu yàlla def na ni groupe doo moom laa approché demoon ci yaayam mu ñaanal ma ba may waaj a tukki vraiment ñu waxtaan mu am signature de contrat gi nii ma yóbbu ko stade foofu la ñu may njëkk gisee. donc tey Modou Lo tamit di ko baax ñu toog euh, télévision ma dégg mu sedd rafet ci man wax lu rafet waaw ne ñoom ñaan ñëpp ay doomu Sénégal lan ñu ngi ñaan rek sunu papa Alioune Sarr ak sunu famille ñu bàyyi leen ñu bëree ndax ci Sénégal ki kañ wax lu rafet daal. waaw ma ci loolu nag laa ko téye ba tey ba sànq ku baax la waaw dinañ ñaanal ñoom ñaar ñëpp samay doomu ndey lañ que gañ waaw que gañ dal combat Yékini Lac de Guiers waaw Yékini Lac de Guiers 2 moom waaw Yékini Lac de Guiers Papis ma koy nuyu muy Lac de di suma xarit moom tamit di ko baax di ko ma jox respect ku ma jox cër. wala na lu mën a gisee mais dafa fekk rek temps bi des fois samay voyage wak samay déplacement mais moom ku ma ku ma bëgg la tam daal Yékini tamit champion la incontestable di mbër moo xam ne ni il tout fait waaw def na fii lu mu fi deful amul mais nag defet moom bu ñëwee rek ñëw la daal suñu borom mooy dogal lenn rek laa xam ni moom bu doon man may Lac de Guiers war a dajeek euh, champion bu mel ni Yékini du ma toog Sénégal dama doon dem. ma toog Sénégal parce que Sénégal dafa tàng damay dem parce que mbër mu mel ni Yékini booy dajak moom ba ko yëngal il faut nga wuti doole dëgg il faut nga wuti doole dëgg-dëgg te yaakaar naa ni moom doole boobu mu yaakaar tamit xam na bunt yi mu ko uti fii Sénégal ba ut ko parce que boo ko gisee seen face à face bi masse bi jënd na c'est bien attan na ba taxaw mais ni ma gisee ni tamit ak bi muy wàcc du njuug ak njuug ba mu doon def bi ma koy gis. Euh, Euh, Jeux d'Afrique yi amoon fii bëre bi bu ma koy gis euh, kii de lutte bi amoon fii CEDEAO ba amoon fii njuug boobu mu njuugoon ak njuug bu mu njuug euh, face bi du benn njuug bi mu njuug nii Yékini dëgg laa gisaat wàcc bi mu wàcc ak njuug bi mu njuug ma xool ko xam ni mbër pare na waaw gis naa Lac de Guiers tam ñoom ñaar tam ma ne nii ñaanal rek que le maire gagne mais nag naan Lac de nag mu def attention parce que gaynde mer la fanaanoo waaw loolu la. Siteu Sa waaw Siteu ak Sa moom sita mbër bu ma neex la mbër bu mën indi show la Sa tamit mbër bu ma neex la mooy rek ko di doomu Double Less xam nga kooku moom kenn dootu ko wax publicité wala ngay am dara ñooñu ay kaamil lañ ci bëre mën na lu ñuy def xam nañ bëre Sa Thiès il a il a Balla Gaye son père. derrière lui xam nga man Double Less dafa ma soloon sama idole aussi Double Less parce que Casamance dëkk naa fa 13 ans école Jean Kandala doon jàngee Santhiaba ak ak euh, Bukot ak Budodi rek laa doon fréquenté donc yàgg naa fa donc tey gis naa Sa mbur mbër bu gaaw la macha allah gaaw na trop trop am na doole xale la te gaaw na te bëre kenn du wax ndax mën na bëre wala mënul bëre c'était tamit gis naa ko. mën na bëre seetaan naa combat bu passé moom ak Zarko li ma gisoon ci moom mu manqué ko mooy doole te defe naa ne États-Unis ku fa dem boo bëggee doole di nga ko am ah léegi nag ñoom tam lu may wax rek mooy que le gañ rek ma ne nii ñaanal ñoom ñëpp ñu fekk jour ba tal ko te mën ko rek rek saison bi neex bërëb bu neex ñu finir dans une bonne saison de gaieté yàlla def euh, weer bi remplacer lu ñu perte si at bi yëpp ci làmb ji mu ñëw ci weer bi làmb ji jóge fi lancé wu tàkk ba faw quoi loolu daal laa yéene parce que man dama bëgg bare te yàlla waaw Sénégal moom jàmm naat fi naat fi daal ñëpp ànd ak wër yaram ak euh, sutura ak gudd fan. est-ce que amateurs yi mën nañ gis ci ñetti affiche yooyu benn affice boo xam ne Rocky dina fa ñëw sol seulement takk yi soor diwoo poudre ñëw bàkku wane boppam est-ce que loolu c'est possible. waaw loolu c'est très possible cest dire que lépp mu ngi dépendre sama agent rek parce que xam nga euh, daloon naa dem depuis la trois léegi loolu yëpp dama koy négocier maa ngi ciy waxtaan mais nag ciy yokk sax takk sër yi mu wàcc sër rabal yi wàcc waaw ma ñëw ànd ak ku naan Mbaye Guèye Mbaye Guèye bu Colobane waaw mu tëggal ma sama tëgg bi nga xam ne maa ngi koy ñaan yàlla rek loolu yàkkamti naa ko trop trop may dellu daal di baal ñëpp ak di baalu waa CNG ak daa euh, réeroo rek moo am seytaane fu mu xajoo rek lay dugg te rek on lui a pas la la bonne voie kenn mënul rek la bonne voie bu dem démb doon tey damay jugal sam bopp dem fëgg bureau Alioune Sarr waxtaan ak moom comme papa doom mais euh, parce que koo gis rek ku nekk rek. koo gis nag mën na xam na ko mën na jege xam na diw xam na diw ku nekk xam na mais kenn mënu ci dara tous ñoom ñëpp dañ doon wax rek dañ doon wax rek su wax jotee ñëpp lay war wax kaay ma yóbbu la kaay maa xam diw kaay man la kaay lii kaay lii mais nag comme lu ñu wax rek naan ni mag dina toll fii gis lu gisul ma naan ko déet bul dem fekk ni moom jaar na fa ba pare loolu dal na ma beneen yoon su ma gisee suma rakk wala keneen man tey xam naa yoon bu ma koy conseillé yaddu ko pour mu jaar foofu waaw mais baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak site yeeg journaliste bi wax ak ki toog tele wax ak mu jaar yoon wala jaar yoon man sëriñ Abdou Karim rek laa gëm dafa waxtaan ak man ñaanal ma na ma digg bëre daan daanaat ñaanal ma ma jóge Touba mel ni sama xol bi galaas moo ci nekk waaw kon tey maa ngi baal ñëpp ak ci yéene ñëpp jàmm waaw.